pétrole yeeg affaire yooyu loolu financement ak gerte non war na mën parce que mën na parce que war na parce que bu fekkee ne la mu waxoon. gëstu gëm gëstu ji woon nee na indil ko pour dimbali jaam yi dégg nga <laughs>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 Euh, Kounkandé waajal xar su Soumbédioune gi mais malheureusement li nga xam ne moom lañ doon xaar mu jëwul antu yaakaar naa ne ñoo ko gisandoo ñëpp euh, jot nañ ci euh, comme ni niñ leen waxee woon nag dañ koy topp ba ci cëppaandaw gi tax ñu dugg ci sénégalais yi dëkk leen suñu micro laaj leen ana naka la ñu gisee li nga xam ne moom moo di mbiru Kunkandé bi parce que ay weer ñu koy topp te gis nañ fi fi mu mujjee buzz la wala du buzz ndaka la ñu ko jàngatee ak lan moo ci seen gis-gis damay ànd ak ki nga xam ne moom moo di Massour ñu xool réaction sénégalais yi ci biir Sunugal 24. sëñ bi ñu ngi lay nuyu tur bi naka la. Ndiasse la. Ndiasse li xew ci Sénégal ñoo ko mbirum Kunkandé tey doonoon tam xarit ñu doon xaar mu xar géej gi ban jàngat nga ci am. a ah, loolu de moom sax waaye nit ñee si jël seen temps di wax rek waaye Koukandé moom leeroon na ma ne waxuma la xar géej gi sax waaye ndox mi di taa fii sax ci kii bi mënu koo xaj xar ndox mi taa ci côté eh, buntu atelier bi mënu ko xar yàpp ñu nag moo tax Koukandé ne day xar géej seen alimaamu laay randal géej sëñ Tuubaa julli ci géej mu ñëw ne day xar géej kii yàbbuñu ah mais yéen Koukandé yàpp nañu de non dama xam na loolu manque de respect la parce que respecté ñu moo tax sunu nit ñu baax ñi def li ñuy def ci géej gi moom mu ñëw ne deere day def maanaam benn kiraama ci géej respecté wuñu mais kii mën na fen yàlla ma yàlla jégal nag mais oh tut léegi sénégalais yi wax dañ ko war a fekk këram du déloger ko yow loolu est-ce que d'accord dañ ko war a tànc dañ ko war a yóbbu ba tefes ga mun naan géej gi loolu lañ ko war a forcer mun naan géej gi par force lim dañ koy jëli kunkaane nañ ko fekk Maroc nañ ko fekk Maroc gam nekk indi ko fii indi ko fii tànc ko mu naan géej gi waaw. est-ce que du genre yi ñooy yàq réew mi. benn ci moom kunkande kese moo yàq réew mi fi réew mi toll mu ut bës naan day waxuma ay kalaasu ñoom gars yi mécanicien ay ñoom laay mbër naan dañ koy jàppale ay caat kunkande munoo xar dara du yow yow xamoo dara ah ñun dañoo ci kunkande. ñu ngi lay nuyu bi naka xaarim ñi ngi la. yaakaar naa ne événement bi tey ñëpp a ngi ko doon xaar mu di mbirum Kounkandé gis nañ ni mu mujjee loo ñu ci mën a wax. ah man na ma jàpp ni sénégalais yi ñoom ñoo yeewul rek ndax kooku noonu maanaam benn dafa yëpp sénégalais yi ñaar état bi ci boppam ñoom ñoo war a jël seen matuwaay saa waay yii dafa war a deñ Sénégal mooy lan mooy comme genre ni ñu mel noon noonu dañ leen war a jël comme que nee da xar na état bi yónni ay jeunes yi ñu jëli ko këram. yóbbu ko ci géej gi na ko xaral boo xarul ñu xar leneen yóbbu la si kaso bi nga dee ci parce que loolu dafa Sénégal ay nit tay lay dee nit dangay ngay daanu affaire yooyu moo war a dañ senegal Sénégal dafa war a toll ci beneen niveau mais pas ay niveau ay Kounkandé Kounkandé mooy kan waaw maanaam loolu moom dañoo bëgg mu deñ état Sénégal président Macky yow la ñuy waxal loolu da nga cee war a wax mu deñ loolu mooy wax ji ay gisaanekat yi xamuñu dara dañuy sóob rek dara xamuñu ko wallaahi billaahi wallaahi mosuma koo gëm xar géej gi du waay yow saawaay waay saawaay ñun mag ñu baax ñu ne fii luñ fu deful amul keneen ku ko mën a def ku fees bët amul keneen ku fu mën a def leneen ku lu mag ñu baax yi def ba teg waaw lii lépp ay mbir la rek waaw mais loolu dafa war a dañ Sénégal féticheurs yu nekk fii di sonal nit ñi la ñu war a wàccee benn par benn ñu jeex tàkk Sénégal dañu war a avancer quoi liggéey man de musuma bett man xamoon naan bu demee ba dernier moment loolu lay indi loolu lay indi musuma bett saa waay ji xanaa gars yi ko kiiwul siiwul rek mais saa waay ba muy nekk Tamba ay wax yu gën a garaaw yi la doon wax waaye kii waaye dëbb rek lay def xamul dara maanaam Sénégal li fi nekk loo xam dañ ko war a wax bari li nga xam du dëgg ñu koy camoufler bëgg koo def dëgg maanaam dëgg lañ bëgg a jël maanaam def ko ay ay kii quoi ay fen loolu mënul nekk. fen nag ñu bëgg koo def dëgg waaye ban daw bu dawul sax bu toogee fi duñ ko def dara ndax Sénégal yi ñoo matul instant yi période tamxarit lañ toll a pas ñu wax tamxarit lan mooy njëriñam ak ñaan gi loolu moo ci am solo mais tamit yéen da ngeen si am part de responsabilité yéen presse bi parce que boo doo leen defee leen benn affaire nit ñëw rek orienté leen ci benn affaire lool mooy lan da ngeen di jël li am xam loolu la askan wi di dund. xam nga loolu moo am solo mais ay kunkante kooku mooy kan fu mu toj tojul fenn bar sëñ Tuubaa tojul fenn da ngeen di jël mag ñu baax ñi li ñu fi def ngeen wane ñoom seen i xar baax ñoom waaw. mais sénégalais bëggatul lu baax de euh, la preuve en est que tey boo doon def benn émission boo xam ne ci diine lay wax kenn du ko seetaan. waa c'est ko loolu loolu noonu ba tey dama koy delloo fa mu woon maanaam presse bi tey boo xoolee ñoom duñ la wax dara diine daray diine duñ ko teg affaire u caaxaan rek. ay affaire u fecc ay affaire tari buñ doon tari alxuraan tey kenn du ko seetaan ndax lan presse bi ñoo ko nanguwul teg presse bi ñoo war a focaliser wu ci loolu. noo non noo noo non non non non maanaam presse bi maanaam dañoo nekk ñoo xam ne ñoom fu ñu dem rek fa la nit ñi di dem presse Sénégal fu ñu toll dañoo am doole boo boo xam ne tey fu ñu dem rek fa la leen nit ñi di topp kon nag da ngeen di orienter nit ñi ci loo xam ne seen diine maanaam ñoo xam seen diine xam seen farata xam seen sunna loolu moo am farata loolu mooy yoon mais bu ñu jëlee kumba ay fecc ay ay ñàkk fayda la saa waay Sénégal war a changer quoi level bi dañ ko war a weesu. sëñ bi ñi ngi lay nuyu la. Mañoon laay la. naka nga jàngate mbiru Kounkandé bi. waaw Kounkandé moom mbiram man moom franchement parler suivre ma ko carrément parce que xam nga lu tax jàpp ne Sénégal dafa neex Sénégal moo neex neex nga nga xamante ni lu waay neex wax. da ngay tëdd sa néeg di wax wala nga lekk say ginaar ba suur tëdd di wax lu la neex dara du la ci fekk te nag il temps pour man nit ñi yeewu ci loolu ko parce que Koukandé mënul wax li mu wax pendant des semaine ban agsi si mu naan noo koy reporté yàlla xam na ni moom laa doon seetaanaat léegi nii mais man dama jàpp ni yebaate weesuwul loolu man waxuma sax si cadre ñi ko gëm de ñi ko gëm ñoom la concerné mën nañ ko gëm mais comme ni ko sama grand bi waxee rek fii mag ñu baax ñi leen fi def yàlla moo leen ko may te ñoom tëdduñu nelaw pour am ko. bi mbir mi di euh, jub si comme ni nga ko waxee préparé nañ ko ay semaine est-ce que amoon nga yaakaar ne que Kounkandé mën na xar gi. mosuma ko am nag franchement parlé walaay lancé mosuma yaakaar parce que ma jàpp ne waxu ngelaw la rek ah day dem. comédien la rek en plus sénégalais tamit nañ wax dara sénégalais moo bëgg a buzz sénégalais lu buzz amul bokku ca. farata yi bàyyi nañ ko topp ci buzz yi nga xamante c'est inutile man sénégalais yi ko gëm laay condamné donte nag am nañ ci droit mais dama naan nan xool balaa ñoo gëma leen bu yii bu ñu tardal ay détails la mais <laughs> loolu <laughs> moom moo moo yey daw de daw sérieux laa lay moo yey daw parce que bu fi toogoon ñu ne carrément xarul wallaahi lazim tama dina ko uppi buum non tama da koy uppi buum moom su boobaa nekk fi xaj moo koy gënal nekk fi nit ndax sama classe gi moom duñ def dara ñun moom la ñuy toog di xaar mais booy saret yi rek lan koy bàyyil parce que moon leen woon nañ ñëw waaw xam naa ne xiir yi moom fu mu dal fu ne dina métti si moom trop. laaj ko lan moo si xalaatam tonton ñi ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay fay. tonton euh, euh, dégg naa yow bokkoon nga ci ñi gëm Kounkandé dina xar géej gi. waaw euh, ma ma man Kounkandé dina am lu tuuti rek lu ma wax ci yéen ci moom. waaw fii moom maa fi défendre moom secteur bi yëpp ku wax ma leen sawaay dafa dafa gëstu jëde kanaa gisu leen kaang mi kanaa gisu leen pettaaw yeeg ñoom seen yooyu ak wax ji na mu koy waxee dëgg gi mu koy dëggloo nag loolu rek gëmloo na sénégalais yi te sénégalais nag attends boo waxee benn wax ni dana lay danañ lay gëm benn côté benn côté bi tamit boo am na ñuy du gëm mais nim ci booleeg alxuraan jeeg dëggu gum nu nu ko ci waxee ñun man sama côté loolu moo taxoon waaw fu la jëg fay loolu moo taxoon benn côté ma gëm ko waaw ma gëm ko quoi waaw ma gëm ko benn côté waaw mais aussi tamit ah, nañu bàyyi état bi sax laay wax nañu jël ay mesures ci affaire yu mel nii xam nga nit ku jógee fee rek ñëw na dañuy def nii waaw ñaata weer la ñaata weer la gars yi di constaté si Koungheul ñaata weer waaw yow dafa bëri kenn liggéeyul kenn xamul nooy def laay doon nii ah waajal xar géej bi rek ñuy wax ne man fa ma demee fa ma découragé nag moom fa nit ñëpp découragé laay wax sax parce que après ba ni boobu dama ko seetaan ñu ne nee na entre cinquante mille ma ne ah waa jooju nag maa ngi koy bëgg a weddi man maa ngi gars yi dem di ree waaw mi ngi bëgg a tax sax mi moom mi ngi ne woon day dimbale jaam ñi dafa am benn mission bi muy dox jëlee ko xaw ma jàng ko nee na jàng ko ci ban pays ak ban pays lim pays yëpp léegi nag yàlla daf mu ne looloo ñu jox ko ko mu mu mu mu muy pouvoir boo xamante bi da ko bëgg daf ñëw wan ko askanu Sénégal mii moom kese moo xamante bi moom moo ko dafa gum ci euh, dëgg la sax suñu maam yi daf ñu lu bari loo xamante bi ñooñu moom kenn mënu leen di naataam la moom moom xam na ko mais li ah non amagu fi amaatagu fi amaatagu fi vraiment moom moo ñëw ne dafa am lu mu gëstu ji woon jàngi woon ko wan ko war war ko wan askanu war ci dimbale jaam ñi askan war ci dimbale jaam ñi xamul wala ah man loo tax mu gëm ko ndax xam nga nit ñi nit nag booy dimbale jaam ñi man moo waxee loolu rek man dama man man dama lay gëm parce que noonu noonu laa leen su liggéey bakkaay bi muy nekk nii noonu laa noonu laa ci dimbale jaam ñi aussi. léegi démb bi nga déggee ne moom nee na dafay reporter affaire bi eh, ban jàngat nga ci loolu. ah gars nee nañ dafa daw ak ay ñii nangam nang man gëm naa ne da ko reporter de nañ ko xaar rek nag bu leen découragé de rasulullah ay kungaan bu leen découragé kooku sa waay nee na nee na aw maa ko maa waxoon ma sama nijaay waxuma ko sama nijaay waxuma ko benn télévision waaye dama koy rapporté waaw léegi da ko rapporté nañ ko déglu bu leen gaaw a découragé yéen Sénégalais yi nag ah yéen nag da sax lan dafa xees nga ñuul rek man mu toogee di si arñi ko noonu xam si wax di arñe noonu fas kanamam doo gis mukk mu ree man loolu moo ma neex si moom nit da ngay am fulla ak fayda booy wax tëj sa kanam noonu la mais sa waay ah en tout cas moom bi moom gayen jël na ko gars yi fii kenn am fi woon bës de sëriñ si nga doon dégg nii da la na suuloon ñoom ñëpp de doo dégg kenn ñu naan diw sëriñ diw sëriñ diw sëñ kunkaa nga rek ngay dégg cëp ah, en tout cas daal wax dëgg de da ko reporté nañ gëm na da ko reporté rek buñ fi nekk beaucoup ñu di wax naan ay ay non xamul dara yooyu kunkaa nga maa lay wax nag xoolal da ngay ñëwaat nga wane affaire bi mul jeex waaw bu fi indi ay ay polémique wala ngay jéem a def ay yéen déedéet ñëwal nga wane affaire bi Sénégalais yi saa lu ñu dañuy dañuy gëm benn affaire de dañuy gëm nit li muy wax di dëggu ci bu dee yow li ngay wax da nga dëggu ñëwal nga woon gars yi. mais Kounkandé ak li mu fi def nii est ce que ñu metti naa jàkkaarloo teg sénégalais yi di wax dara. léegi man bu doon maa yow. ma xel voilà moo tegal la benn benn benn stratégie booy defati mbir bul ko wax bu ko fësal demal def ko su ko defee boo ko defee ba pare rek nii dañuy xam ne yow mii ah yaa ko waxoon comme nga comme yaa ngi jàppoon sa mbujum mais demal ba euh, gore wala nga dem ba tëngëj. wala mbaaw nga xaar ko foofu trois parties mais nag juróom-ñaar la wax da ah. la ilaha illallah waa ji nag boobu mais nag ataa loolu dafa xew nag wax waxet dafa xew de moo ko waxoon nag am nañu fi bëri ñu dañ fi waxoon di waxet léegi moom tamit wax na waxet amul problème waaw am garaawul mais nag nag man li ma li ma li ma gëm man mooy moom na ñëw dégg nga daf ne dafa daf ne da ko rapporté man loolu la wax parce que bu noonu non bu ñëwul moom xam naa ne ñàkkul gars yi koy set sax kanam ñàkkul koy seet de fi mu nii sa waa ji moom daf non daf ñu daf ma rusloo man koñ bi ku ñëw ñoom ma ne wooy jaay fay barki yàlla fii ku fi jaar ku gaanga fan si ku ma la leen da koy xar jour ma puis eh, li may wax nii maa ngi doon profité nii ñu ma wax nii bu fekkee waxul woon dara tey préparé préparé sama liggéey pour limiter ko ba trois heures pile ma fekkee ji xar pare woon de tey dama teel a xëy sept heures laa xëy six heures sept heures laa xëy yëggal sama liggéey 3 heures pile ma dem fekkee ji affaire bi. léegi xaaral reporté bi merci beaucoup. ah nu ñuy def dañuy wax non reporté bi lay xaar de naka gaa yëpp xaar dana ñëw eh sa waa ji boo ma boo waaye boo dégg boo ma gisee na nga na nga na nga déglu mu baax li ma lay wax bul fi découragé bul jéem a indi ay affaire quoi indil affaire reportage bi neel bul wax sa jàppanaatel jour gars yi da la wër télévision yeeg caméra yi déedéet te man benn bërëb rek nga xar parce que man ñu baax yi noonu la ñu defoon ah. dañuy def benn affaire duñu wax. mais bii paa moom tamit bul wax dama rek nga def. tur bi naka la. maa ngi tudd Babacar Badji. Babacar yaakaar naa ne li xew ci Sénégal ñëpp gis nañ ko mbiru Amadou Koukandé lan nga ñu ci mën a wax bi nga déggee ne que nee na mënatul xar géej gi wala reporté na ko ban réaction nga ci am. waaw ñun moom dañuy sant yàlla si si loolu parce que ñun fii mun nañu wax carrément fii dara beesu fi parce que boo xoolee ñun dafa am na leen loo xam ne carrément sama benn kilifa daan na ko wax ñun dafa am lu jiitu suñu xol ba pare parce que li Serigne Touba wax. am na lu ma bind benn téere bi ñu jazlub xulub séragiment li ñoo feeñu ko bind bi zajlub xulub ñoom dañ ñëw rek attaqué xolu doomu aadama ñun loolu moo jiit su ñun moo tax ñun fii dara beesu fii parce que séragiment daan na wax ba nee ni carrément soo gisee góor bii di génnee ay njabar da nga koy méngale jigéen góor gi da nga koy méngale góor bi gis baax moo tax ñun fii dara beesu man moom wax dëgg yàlla moom lii bettu ma def ma benn dara def ma dara parce que man daal àndalu naa sama conscience tranquille la ma doon def maa ngi def ku kaande amul su rombee naa ko vu naa ko xool xam actualité ak dëkk bi fu mu toll mais xëy na tamit doomu aadama yi carrément am na ñoo xam seen matadi mu leen yóbbul carrément ñu dem ba topp kuukaande foo xam ne carrément yóbbu na la foo xam ne carrément mun nañu wax carrément ñoom ak ñenn ñi am nañu si déception ñenn am nañu si déception kuukaande parce que tamit liy dëgg la tamit lii moment ma dëgg yàlla autorité étatique yi war nañ si jël ay responsabilité boo xoolee carrément léegi da nga gis carrément ku tarax laay ku mun benn mokkal benn Fatiha wala benn isbulaay azam rek commencé fàtt nit ñi image go woote wilaya ki moom balaa ngaa naam da nga a ne ku kande na tamit même bu yebee sénégalais yi ah mais en tout cas carrément ku nekk tamit li benn moom la concerné mais am na ñenn yoo xam ne mujjee dem affaire yi leen dépassé sonal nañ ñu nit ñi wa dëgg yàlla sonal nañ ñu mais man moom quant à moi man en personne man ça fait ni chaud ni froid Kounkandé moom en tout cas daal xam naa ci leen mais nag xëy na tamit il faut que tamit suñu parents yi tamit ñu jëlaat suñu ay na leen dina am ñeen koo xam ne carrément benn dafa neex a këf am na yoo xam ne dañoo neex këf lu ndaw ngelaw bu ndaw mun na leen jëf yóbbaale leen comme genre détails mun na leen yóbbaale leer na ma am na ñeen yoo xam ne cinquante mille pour assister jotaay boobu évadé de ce pays mais nag yàlla def ñu def ñu carrément ñun dañoo ànd ak iman dañoo ànd ak taqwa ànd gëm moo tax carrément ñun moom wax dëgg yàlla moom lii moom sonal la ñu moom. boo jàkkaarloo woon tey ak Kunkandé ban baat nga koy dénk. man Kunkandé su ma jàkkaar moom xam naa ci lenn moom fekkee tamit dinaa wax si xel bu sell su fekkee mën na mu dégg dangaa ko ne carrément dellul ci la xam ne carrément ëllëg ah boo dajee ak say kilifa duñu la mere boo dajee tamit say soppe duñu la mere da ngay delluwaat sa si yàlla parce que ñun ñëpp ci yàlla lañu jóge si yàlla dee donc donte da ngaa bëgg am teraanga àdduna mais am am am alal neex na tor mais amin bi amin baa ko daax am alal lu mu neex neex mais nañu xool amin bi waaw man loolu laa koy wax. ñu ngi lay jaajëfal. a baax te gis ngeen tamit carrément ñun lii la ñu soxla si yéen parce que SN24 ñun ñoo ngi ñu dund suñu biir xool xam carrément ñun li ñuy yëg parce que man man c'est un grand plaisir bu baax a baax di ñaan tamit yàlla ngeen àgg fu télé yu mag yi gën a àgg dem ba raw seen niveau sax ay France 24 ah. billaay wallaay longue vie à vous ah. di lay wax tamit waaw ah, tam xarit mubarak waaw yàlla na yàlla fekk ay at yu bëri di wax tamit mépp muslim bépp jullit ñoo leen ñaana tamit yàlla nañ ko fekke ay at yu bëri yu ànd a xéwal ak sutura di ñaan tamit mbalaa bii xam nga balaa la ñu wax xaw ma corona bii li tout pël bi doon wax àll ba ni corona na ko fi yàlla jëlee